di disapon Eksyah Omar disapon Eksyah Nur Umum Voilà, tapi Donc, ñu xaar leen ah, si la suñu xaar leen, voilà. Bon, la ñu jël continue, ñu si la suñu Obrigado. seize heures am na ñu toogoon di xaar waaye réalité campagne moom moo demee noonu mën nga xam heure booy jóg mais doo xam lan moo nekk ci yoon yàlla def di fi le président Aliou bëggee ñëw sax jiitu woon na sax campagne ci pré campagne lañ ko nasoon waaye mu jur sorti tey la ko yàlla dogal xëy nag je me sens un peu insuffisant kon ni damay présenté Aliou euh, soxna Oumou xam naa loolu moom duñ ci yi dañ koy ubbil rek bu ko defee ñu xam ni donc ñu seedeel soxna Oumou taxawaayam bi nga xamante ni am na ko mook euh, suñu kilifa gi di Cheikh Oumar ci parti bi waaye aussi ci lépp loo xamante ni njaboot sëñ Moustapha taxawal na ko rek soxna Oumou taxaw na ca nam ca war a taxawee boole ko euh, modestie boo xamante ni wax dëgg yàlla jéggi na dayo ñun dañuy am sax kersa parfois bu ñu ñëwee mënuñu yéen samay frère ngeen maanaam daal ci gàttal taxaw na ci biir taxaw na ci biti te nag yàlla def mu euh, mu njaboot ndax pour ni fondation Mame Fawade Wellé yow yaa ko jiite mu nekk fondation boo xamante ni foo dem ci senegal am na fa ay loolu nekkul lu tuuti te mm. ñu soxna si loolu tamit ah dañ la ci dénk li nga xamante ni xëy na ñàkkul ni jaaru nañu wax ko comme campagne lañ nekk ku yore fondation bu toll noonu. 15000 membres 15000 ah loolu yaakaar naa ni Aliou ñu ngi amee ci ay carte waxuma la euh, deuxième tour waaye premier tour duñ ko xëccoo kenn donc yàlla na carte yooyu yëpp lew na. kàddu yi loolu lay toll duñ ko guddal kon ñu bàyyi leen ak kàddu yi xëy na ñu ngi ànd ak suñu. suñu suñu suñu responsable département muy Baydi Diop euh, kii moom moo fi Cheikh Ba Khoyoko moom xam ngeen ko moom moo euh, nekk relais président u localité bi honorable euh, Mansour Kébé honorable Moussa Fall présentation bi sax da ngay xa da ngay <laughs> waaw Serigne Cheikh Tidiane Sarr Serigne ak ñi nga xamante ni ànd nañoo ñoom ñëpp ak Imam Ndiaye imam Samb ñoom ñoom ay ay ay wóllëre soxna umu lañ bu ko defee ak euh, Lamine Diouf moom wax dëgg yàlla mu nekkoon tamit di yëngatu ci politique yàgg na waaye bi Aliou ñëwee mu gis Aliou ak euh, euh, compétence am ak sérieux mu ni lépp lu mu ba jàppoon ci politique feneen dana ko bàyyi ñëw ànd ak Aliou bu ko defee Lamine ah, taxawaay bi yàlla na gën a dëgër yàlla na yaakaar bi gën a dëgër di jaay nabil karim sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen merci beaucoup. May Mbaye euh, soxna si ñu ngi lay ziyaara di la nuyu. di ziyaara bu baax. di nuyu Cheikh di ko ziyaara bu baax di am mbégte euh, ñëw fii ci kër gi. Euh, di la nuyu. ànd ak sa candidat bopp. <laughs> ndax kenn ëppale wu la ci ndax sa way jur moo ko tànn tànnal ko waa senegal muy candidat boo xam ne senegal gépp ñoo am yaakaar ci moom moo tax moom bi mu ko tànnee waxul ne candidat wu PUR la daf ne c'est le candidat du Sénégal moo tax ñu tudde ko le candidat du te yaakaar naa fi Sénégal toll tey guddi yi mu toll pour mu génn ci guddi yu lëndëm yooyu amuñu ku ko gën ci candidat moo tax sa waajur ba keroog ca Tivaouane wax na ko ne ko kenn gënul te loolu lañ gëm moo tax ñun ñëpp ñu futteeku ànd ak moom te yaakaar naa ni loolu moo tax yow it nga futteeku ànd ak moom ndax sa jur moo jiitu jiital sa mbokk yu baax yéen capitaine ak soxna Fatima ak ñi ci kër gi ñëpp ñi ngi ci soobu ci biir kon yow ñooñu lu ñu soobu yow waroo cee des loolu moom moo ñu fi indi ndax xam nañu fi sa waajur toll ci yow xam nañu fi cause sa waajur toll ci yow kon fi daanaka mënoon nañu fi sax bañ a jël kàddu ñu ko joxul woon mën nañu wax directement le président ñi fi ànd ak say frère u bopp ndax cause bi nga xamné ni mom le Serigne Moustapha di le président nek muy cause bu noble te cause boobu weesuwul lu défendre le peuple sénégalais Serigne Moustapha il a toujours été du côté du peuple fu peuple bi mës soxla rek taxaw na seen wet fu Sénégal mës a jaaxlee aussi jóg na pour défendre le Sénégal aujourd'hui encore ñu toll ci benn phase histoire Sénégal bu doy waat boo xam ne nii ñëpp yaakaar nañ ko moom nag mu jël àll yu jiital ko ñun ñëpp ñu ànd ak moom nekk ci campagne bi ah kon ñun suñ kër rek lañ ñëw di la delloo li nga xam ne nii yu yaa ko moomal sa bopp di la wàcce aussi sa wàccuwaayu bopp fii moom man duñ fi campagne mm-hmm. ndax yow yaay campagne campagne <laughs> liñ doon def rek mooy nuyu la euh, comme niñ koy defee ci fu ñu jaar fu nekk kilifa ya fa nekk ñu nuyu la defe naa loolu rek laa ci amoon comme kàddu euh, li ci des bu fekkee Cheikh am na ci kàddu jox ko jox le président di beral nuyoo aussi Cheikh Omar bu baax moom it di rafetlu taxawaayam bu baax a baax ak ñi nga xam ne ñëpp ñoom nga bokkal kër gi ak yitte yi nga xam ne nii ci nga nekk di ko dox di sant aussi ñi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk ci zone bi moo xam ñu nekk ci parti bi wala ñu nekk ci mouvement bi di ci liggéey ngir yàlla ak lu jëmale senegal kanam asalaamaaleykum wa rahmatulah sëriñ bi ñu lay nuyu kër di la ziar xam naa ne ci tukki nga jóge parce que ba nga nekkee ci tukki bi ñu waxtaan man ak yow ñu ngi échange. soxna si ñu ngi lay nuyu si Malick di la gi dox suñu diggante ak góor gi moom lañ lay fekk bu koy defee saa ma toogee kenn ci njaboot gi muy capitaine surtout capitaine dama koy wax toujours di ko feddali sama kóllëre wala sama diggante di ko ci seedeel sama diggante ak góor gi diggante bu extraordinaire am na loo xam yow it bu ñu toogee ak yow jaadu na la loolu amul lu ëpp amul lu moom li Cheikh wax muy dëgg amul tul lu muy prouvé amatul lu muy defati lu toog noppal parce que nag yar na njaboot boo xam ni mën nañ koo taxaw ci ci loolu rek la nekk xam nga bu ñu toogee ba Sénégal yëpp naan candidat wu Serigne Moustapha fi gën ku soxoru kuy waxal sa akulaay taala ne candidat bi Serigne Moustapha andi moo fi gën profit moo fi gën compétence moo fi gën baax loolu ci seen xol yi dagg sax ak yi koy wax ah, ah, dañuy wax di ah. dañuy wax di wax waaw loolu mooy lépp moom la moo donc ñu koy sant sant boo xam ne euh, am na fu mu tàmbalee mu yem euh, ah fii moom li Oustaz Cheikh wax rek ñëwuñu fi kuy politique dañu fi ñëw pour ziar yaaru soxna umu moom dama am wàll ci moom lu baree bari ak ay fànn yu baree bari benn bi ndax li ñu bokk man ak moom mooy Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha ñoom lenn loo xam ne ñoo ma ko ëppale ci góor yi ñoo ci bokk yem wala ma ëppale leen waaw loolu moom ñëpp xam nañu ba pare mu tudd soxna Umu sama yaay tudd soxna Umu Cheikh Omar bi it dañuy waxtaan te ñu yónnante message euh, saa bu mu tukkee barki dem rek ci mujj ma koy naan ko dinaa ñëw kër ga incha allah boo ñu gisee rek nga def ma si ñu gisee moom it muy ñaan dëkk ci di ñaan di ma wax bàyyi nañ leen xel na taxaw di ñu yokk doole di ñu yokk courage loolu waaw ah, kenn mënu ko fay donc ñu di leen sant mbooloo mi fi nekk yépp nag ah ñoo bokk li ñuy wut day wax ni li ñuy wut bu ko amee te daañu ko am na daañu parce que damay wax gaañ yi li ma ko gaañ wala ah di nga ci sa yaram wala ngay dox di koyek, yëg wala ngay nelaw di ko wala ngay wax di ko man miy wax maa xam li may la donc affaire bi du kese kese comme ni ko góor ñi di wax waaw kon nag ñu yokk taxawaay yi fondation bi it bëgg nañ jàppale ci ci li nga xam ne ci la ñu nekk bëgg nañ ñu gunge ñu ci li nga xam ne ci la ñu nekk taxawuñu ba incha allah joxuñu Serigne Moustapha bañ a laal suuf man de dama koy wax bés bu ñu toogee chaque jour suñu toogee hmm. ma ne ko Serigne man de lenn rek moom ma yitte mooy. li nga bëgg ci senegal ñu def ndax nga mën a noppal waa senegal yëpp noppal parce que waa senegal ngi ci fitna waa Sénégal ngi ci coono waa senegal yaa ngi ci jaaxle te gëm nañ ni ñun ñii di ànd di liggéey ku nekk sa xol laab na laab boo xam ne buñ ñu joxee senegal ah dinañ ko liggéey liggéey bu mucc ayib boo xam ne intérêt personnel law parce que bu doon intérêt personnel rek defe naa chaque jour ma wax ko Serigne Moustapha lu mu mënul lijjanti lu mu bëggul ci réew mi da wax daa jëlul téléphone am woote bu lu mu bëgg ci réew mi bu jëlee téléphone am woote balaa 30 minutes mu fekk ko fam rek donc ku mel noonu bu dëddoo lépp mais lu mu bëgg rek mooy na réew mi baax na réew mi tegu ci dëgg na réew mi nekk ci yow ah ñu nit mënuñu def ba ñu yàlla dimbali ba ñu bëgg ñu am ko ñu delloowaat réew mi ci xam ne moom la Sénégalais yi bëgg mooy taxaw waa Sénégal yërëm waa Sénégal jàppale néew bi doole yi andi waa dëkk andi confiance ak transparence ci réew mi ba kuy Sénégal di ne ah ñun bu ñu yëgoon wala yeex na ñoo jot ci ñi te incha allah daañu ko def li may wax rek moom ci boppam Mulk Souleymane Mulk Souleymane saa bu ma toogee ak ah ma gëm nag ne loolu du waxu kese kese moom nag xam na lu may junj incha allah donc daal di am mbégte ñëw fii ci kër gi ñëw ziar si ñëw ñu politique du meeting du dara ñëw ziar si soxna si ak sëriñ bi ah di sàkku fi ñoom ñaan di sàkku ci yéen ñaan bu baax a baax parce que xam naa ne bu ngeen ñu ñaanale incha allah ci barke góor bi ñu bëgg incha allah dañ ko ah di sant bu baax a baax gërëm ñëpp di baalu ak ci yéex a ñëw bi am nga politique moom mooy li bokk mi wax rek boo xasee bu jóg pour nga daal di respecté sa calendrier day xaw a métti maam xalifa anam sax ñëw maam xalifa sax ñu woon ci convoi bi mun naa dama ci démb démb rek lañuy wax na ngeen fexe respecté heure waaye ko loolu ko xam daal ni bëgg nañ ko waaye dina xaw a métti te boo demee ak nit ñi boobu nit ñi xër nañ xër boo xam ne duñ la bëgg bàyyi nga dem daal di sant ya bu baax a baax a baax ah yaakaar nag am na bu yaakaar tas yàlla bu ah allah sant di gërëm ñëpp soxna si ak sëriñ bi loolu rek ay kàddu yu gàtt laa ci bëggoon sànni di sant ñëpp di gërëm ñëpp responsabilité bi yëpp ku xam na ne moom mooy taw seen soxna Dieng nag ngeen ñëwee fii seen kër ngeen ñëw dalal mën ngeen euh, tontu seen kaddu yi bu jibee it kaddu yi ñu rafetlu lay doon euh, ngi leen doon xaar takkusaan ba léegi mbooloo mu bari ñoo fi nekkoon di leen xaar waaye xat-xatu jamono tënk leen. egsi waaye dañ leen di wax ne rek euh, sëñ Moustapha moom képp ku mu tànn moom dañ ciy ànd à cent pour cent euh, ku ne xam na ne fondation moom Fond du Lélève fondation bu tuuti keroog rek ñëpp gis nañ li ñu taxawoon biir Tiwaawan euh, kilifa yëpp seetlu nañu jotaay bi ni mel ak mobilisation bi ni mel jafe na nit gis ko biir Tiwaawan te di ko taxawal mooy tawu Serigne Moustapha di soxna Oum Euh, kon nag fa bi bu ngeen ñëwee fii da ñëw ci seen kër euh, di am mbégte ak kontante it di seen Moustapha tànne ku mel ni Alioune Mamadou Dia ci dal bi euh, ci teey bi ci yar bi ci xam-xam ndax ku ko xool it comme ni mu ko waxee di nga xam ne kii kat kilifaa ko yabal waaye kilifaa ko yar kilifaa ko déey aussi mm. kon nag Sénégal am nañu yaakaar bi ان شاء الله بو تيغو تي لوخوم تي لوخو يوور لاي تيغ كون نك نيغي سون ني نيب ريك دينن وور دينن واخ ني ني باي خيل داخ سنغال سنغال نيب لا تي ني فاتلي نك علي مامادو جا دو كانديدا و داير كيس كانديدا و سنغال ييب لا بو نكو ياتال ان شاء الله لي بيغ نكو اب تي ني نكو خامي تي دي ني سيبر سوما وولري xam na ci dara ñun suñu fondation tey ñu ngi vingt cinq mille membres ci biir Sénégal ba Tambacounda ba partout ci àddina bi te incha allah dinañ leen gën a soññ ndax eh, jox joxoon nañ la rendez-vous war a gis ak yow waaye mu fekk ñu nekk ci tukki waaye lépp rek benn la bi ma ko soxla waxee ma ne ko ah, loolu benn la waaw ndax moom si Moustapha lu mu bëgg moom ku bëgg ñàkk kon nag incha allah dinañ mobiliser wu waaye dinañ soññ tamit njaboot ñëpp ñu bàyyi xel ne incha allah candidat bi kooku mooy euh, Aliou Mamadou Dia ñu bàyyi ci xel ndax am nañ ci yaakaar ndax kilifa ko tànn asalaamaaleykum suñu oncle tonton Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Sarr di nuyu macha allah tonton Cheikh Ahmed Tidiane yu di nuyu euh, sëriñ Pape Malick Mbaye tabarkalla ak honorable sëriñ Mansour Kébé suñ leen nuyoo nag ngeen jéggal ñu ku ñu tuddul rek ci làmmiñ tudd nañ la ci xol macha allah di ñu yóbbaale rek tabarkalla yaay yi ak papa yëpp macha allah ak suñu séeréer. waaye di nuyu macha allah suñu yaayu daara soxna ndaxte Sarr nga xamante ni sama cousine yaay la mu dénk ma ko tabarkalla moom xam naa ne euh, sëriñ Moustapha moom boo ko tuddalee soxna ndaxte xam na ko bu baax a baax ndax ñoo dëkkoon tabarkalla te euh, ay ati at du benn fa euh, di nuyu soxna Mame Khar Diop di sama turandoo maam ak soxna Mame Khar Mboub nekk ak ñun si kër gi waaye nag di nuyu dëkkandoo yi macha allah ñoom ñëpp ñu ngi nii tabarkalla depuis si ngoon ñu di leen sant bu baax a baax ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn macha allah seen taxawaay rafet na parce que lu ma nekk rek ñu ngi ci di ma wéttali waaye di nuyu nag imaamu gox bi di sëriñ Mamadou Diagne macha allah nekk tamit ci kër gi sëriñ Mansour joxoon ko ci kër gi tabarkalla euh, sëriñ Malick Niang moom tamit mooy coordonnateur du Waalo du fondation moom Fawa Douelé mu ngi ne en vert <laughs> macha allah représenté aussi la fondation nga xamante ne tabarkàlla ñi ngi au niveau national et international macha allah te ñoom it wax dëgg yàlla lu ma wax loolu la ñu wax lu sëriñ Moustapha Sy wax loolu la ñu wax tabarkàlla te moom moo ñu joxoñ suñu meilleur candidat bi macha allah tabarkàlla dañ ko catu waaye nag kàddu yi benn rek lay doon li Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha wax rek doy na sëkk kon duñu wax sax cent pour cent mais dañ naan infini pour cent dañuy ñaan yàlla euh, suñu borom si kattanam euh, li ñu bëgg li ñuy mbëbët ak li ñuy wut yàlla nañ ko yàlla jox incha allah yàlla mottale ñu yëpp incha allah ñu fekkee ko jàmm te dal ko te mu gën si ñu ñëpp saawan baawan ba nga xamante ni Sénégal incha allah euh, coppite li ñu bëgg mu am incha allah dina ko am te am nañ si yaakaar ndax kilifa gi moom it dañ koy ñaanal Sémari yàlla guddal fanam wéral colom yàlla sàmmal ñu ko aaral ñu ko defal ko ko defal ko capitaine defal ko soxna Fatima defal ko njaboot yi yëpp incha allah ñi ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di jéggalu ci kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatulah. am rek kii sëñ Moustapha tabb kan la ma ko rek dégg naa ne fa njàng yam amatul lu ko sut jàng na ko te bënd koo yor réew mi te am na yërmande te yërmande nit ñi xiif nañu mar nañu sonn nañu rafle nañu kon ku amul yërmande mënoo ñooy jiite kon nag yal nag nu jiite yow dafa am loo nu wax ko yal nag nu jiite ñun ku sëñ Moustapha ne nii nii lañ lay def ku soxna umu nii nii Sağ sağ. Bakın sağ. Sağ sağ. Sağ sağ. kon nag ja yal na ko yàlla dogal bu ko dogalee yal na gën ci ñoom xiif beeg mar geeg rafle geeg coono bi ak lépp ak ñu kër nit ñi di dugal ci kaso yi ak di di di toroxal gor yi ci mën a génne yal na ko ci génne ak sëñ Ababacar kii nag moom moo sunu lépp Cheikh Omar Ka soxna mu waxul woon sax bu naan ñoo ay ci ñu ne ay ci mais soxna umu li mu am bu la neexee dagaan si ko yaa ko moom mooy membre yi ak membres yi Cheikh Omar am dagaanal yëpp lépp

రైతు నుంచి raw kilifa te bët bi ñuy xoolee bàyyee moom lañ koy xoolee loolu moo war a tànk tey yii ndax dama am yaakaar ni am na ndigal loo xam ne fii si jibi ñi moo tax xalaat bi ñëw fii mënu woon ñàkk ñu dugg Pikine ba génn fi te duñu ñëw fii ñëw ci yow wax la sa yóbbante way jur te yóbbante bi génnul ci réew mi dafa toll ci diggante moom mu am yéene joyanti ko jaareel ko nag ci alim Mamadou Dia léeg-léeg nit ñi wax ni xamuñu ko waaye man leen xam ngeen Serigne Moustapha xam nga li balaam mooy Aliou Mamadou Dia mooy Serigne Moustapha Serigne Moustapha mooy Aliou Mamadou Dia ndax dégg naa ko moom mu indi ñetti tànneef amna na koo xamante ne su tànnee rek foofu si ndax du tànn te tànnuloo wuñ ko te moo taxoon nag wax ni man nii ëllëg réew mi dinaa ci jouer un rôle te muy dëggit waaye nag mu yóbbante benn wax wax ko ci mbooloo muy ci génnam bu mujj mu wax ni c'est maintenant ou jamais mu mel ni kooku képp kuy njabootam rek am nga ci pas de responsabilité je pense que loolu moo tax ñu ñëw fi tey yàqul waaye dañ lay wax nga ndax euh, doomu jaan ku mu màtt ñu lugul tànk yooyu moo taxoon ñu ñëw fi sàkku ci ñaan ci yow waaye sàkku tamit jàppale benn xob sax waaye nag am lu ñu gëm tamit sëñ Babacar si taxawoon na wax ni su namee su namee dellu mel neneen ma soppi xob yëpp ñu nekk xob yu vert je pense que ci loolu ci lañuy nekk tey ànd ak Aliou mu ànd ak directeur yëpp ànd ak waa Pikine yëpp ñu ak ci kan mu borom kër kon mu mel ni yaakaar rek mu ñu fi indi digle ni fu ñuy dugg rek dañuy jël ñaan bi nga xamante ne moom la suñu suñu kilifa maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy joxe woon muy gannaaw Fatiha Quraysh juróom-ñetti yoon wala xel ak naas ak salaatul faatiha ñu def ko xaj yi yonent bi yéene ci suñu mbir bi nga xamante ni ci lañ nekk incha allah. mu leen ñaan faatiha Quraysh juróom-ñetti yoon salaatu ala nabi امين يا رب السلام على المرسلين والحمد لله Wow.

dama bëgg dama bëgg ñu continuer leen toog gars yi tout le monde tout le monde na ñëw si yéen ñëpp na ñëpp war oto président na ñëpp war oto président ku nekk ci kii ñëpp ñëpp ñëpp nañu war oto président bay yéeg gars yi nañu war oto président dañ ko wër dañ ko wër dañ ko wër ñëw leen ñëw leen ñëw leen attends ñu yor photo yi ñu yor image yi voilà ñu yor photo yi ñu yor image yi gars yi suppose applaudissement Se faz a pra desmarcar aí. Sem quem? Sem quem? choisir-là, le mien est là, l'homme légitime est là, l'homme le prodige est là, le métier est là, qui peut parler sur le Aliou est là, le président est là, on le paye. Donc gay, gay loxo yi ci kaw, gay loxo yi ci kaw, gay loxo yi ci kaw kaw kaw bay fekk. Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le Président du Sénégal, le salut Monsieur le Président, vous avez la parole. waaw salaamaaleykum waa Pikine. maa ngi leen di nuyu di leen sant bu baax a baax. am mbégte ñëw fii ci Pikine tey ñëw fii pour waxtaan ak yéen. ci suñu programme nit ak naataange wax naa ko programme boobu moom lañ tëggal Sénégal programme boobu mooy li nga xam ne mooy génne Sénégal ci ay jafe-jafe mooy génne Sénégal ci ay tolof tolof mooy génne Sénégal ci naqar bi nga xam ne ci la réew mi nekk programme boobu wax naa ko sànq humain développer suñu capital humain parce que loolu mooy dimension nit bi ci sunu programme nit ak naataange programme bi ci capital humain bi mu ci bëgg mooy defaraat njàng mi njàng mu suufe mi njàng mu diggu doomu bi mais surtout université yi bëgg nañ ko defaraat ku dëkk Pikine fan ngay jàngee ji université ak population bi fi nekk da ngay dem ba Dakar ce que jotul Pikine ñu mën fi une grande université pour les étudiants dans la banlieue à dëkk à ak feneen ak ay parce que Pékin, départements département bi nga xam pratiquement pratiquement population beaucoup de départements département yi nga xam ne population ci Sénégal donc l'éducation éducation war nañu xoolaat bu en termes d'infrastructures scolaires

mon fi war nañu quand même créer un logement une base, une cité ci biir Pikine une cité yu moderne ak logement yu moderne am ay parc yoo xam ne yi une nañu ko fooye est-ce que Pikine tey xale y buñ une football. dañu dem ba ginnaaw une dañuy dem c'est pas destiné à jouer au foot la jeunesse de Pékin en ñoom le plus beau stade qui biir Sénégal stade Alassane Djigo bi bu président de la République du Sénégal il a pour reprendre def stade. stade stade nous mucc ayib boo xam ne équipe bu Pikine yi muy nawetaan et équipe vous championnat dinañ fi mën recevoir mën pour football football bu am solo parce que football c'est un sport wax de manière générale dafa nekk ci li nga dafa am place bu important ci suñu programme yi ak naataange du football rek waa Pikine ku leen xam xam ne c'est de grands sportifs domaine boo jël muy basket muy handball muy athlétisme muy même sport de combat xam nañ ci taxawaay bi nga xam ne moom la ci doomu Pikine yi taxaw donc mu bëgg ñun ci suñu programme ci aspect culturel sport bëgg nañu jël Pikine def ko muy un hub du sport et de la culture pour notre pays et notre fondamental. Dans le domaine de la culture, je veux hip-hop, R&B, quatre hip-hop, R&B, rap, Fi qui réew Fi c'est la jógee C'est ko c'est musique musique de manière générale bëgg nous développer fii une industrie culturelle Mon fi créer ay salle de spectacle yu mucc ayib mën fi ay entreprise musicale yoo xam ne xale yi dinañu mën a nekk fii ñu détecter seen talent à temps ci nu mu gën a gaawee former mën leen andi lépp ko pour mën éclore pour mën représenter du Sénégal ci biti. Nous je veux que Pékin soit le bastion

tabax Pikine quartier par quartier quartier par quartier je veux que Pikine avec la jeunesse soit un hub du digital pour le cap pour la région de Dakar que loolu mën infrastructure digitale boo xam ne war nañ ko fi mën créer war a créer ay incubateur pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes c'est fondamental Qu'est-ce que ci yeneen réew

Nous nous a insérer nous gis naa nous yi fi créer projet boo projet bi nous mu c'est pour les jeunes de la banlieue projet boobu dara amu ci ay financement tous nous, ci waa Pikine nee nañu ci projet boobu nous ci créer un programme c'est pour l'accompagnement c'est pour travailler c'est pour collaborer c'est pour construire avec les jeunes de la banlieue un avenir radieux un avenir prometteur pour le Sénégal et eux les jeunes de Pikine ne seront pas en reste donc Pikine pour wax dafa ils sont elles sont braves Nous war leen nous ñu accompagner ñu war formation autonomisation ak ci lépp Pikine qui c'est le groupement seen GIE ak ONG am na jàppale yoo xam ne war nañ leen ko mën a jàppale mais surtout gisaguma gisaguma ay maire maireu Pikine gisaguma jigéen ñi occupé fonction yooyu moom laa bëgg ci leadership féminin jigéenu Pikine war nañu occuper ay fonction yu important ci niveau niveau central mais aussi au niveau de la communauté au niveau de la collectivité locale donc jigéen ñi daañu leen jàppale ba ngeen mën a occuper ay fonction yu am solo pour que ngeen mën a taxawal Pikine pour ñu defar Pikine loolu laa amoon ci loo xam ne bëggoon naa leen ko wax di leen sant bu baax a baax a baax di leen di leen gërëm di leen wax ne li ci des nag li ci des nag mooy ñu takku taxaw ba le vingt cinq ba le vingt quatre allah Pikine ñi ko bëgg bari na mais gëm naa ne ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko moom. fii ñoo ko moom. fii ñoo ko moom. fii ñoo ko moom. fii ñoo ko moom. Pikine ñoo ko moom parce que dañu am ay mbokk yu am solo yu décidé ñëw ànd ak ñun liggéey xam naa du ma terminé te joxuma leen parole ñu wax ñoom it li nga xam ne mooy seen motivation ñuy ay doomu Pikine muy ñu tekk ci dëkk bi am fi kàddu am fi valeur bàyyi ñëpp ne yéen waa PUR. le programme est kat mon moo Il doy pu PUR candidat qui compétence qui parcours qui profil qui lépp mon vous ñu donc vous vous vous vous conditions yi surtout marché syndicat marché syndicat ni Vous marché syndicat. pour ñuy loo xam ne dañ koy andi di ko yokk ci marché syndicat lay nekk marché syndicat amul assainissement marché syndicat amul ay état yu baax yoo xam ne nit ñi dañ a liggéey cantine yi baaxul mbedd mi ni mu mel jaaduwul wax programme bi nga xam ne wax naa ko la modernisation des marchés du Sénégal marché syndicat daañu ko moderniser dinañ ci andi toppite ba dina yeewu dimanche am xol bu neex am mbégte wu taal otoom ànd ak ay doomam ne maa ngi dem marché syndicat bu ñëwee def lu jënd def ay course dox naan taal otoom dem yoonam marché syndicat bu ma nekkee président de la république en moins de trois ans en moins de trois ans et c'est un engagement que je prends en moins de trois ans nous allons refaire le marché on va moderniser le marché et enfin enfin enfin li ma bëgg mooy père de Pikine une ville intelligente li wax smart city une ville intelligente transport intelligent logement intelligent accès à l'énergie pour famille de pays intelligent ak notre familles de ne dafay nekk ñu andi pour transformer pour transformer Pikine mu nekk pour Sénégal di

ñu war ko agressé jaaduwul donc lu fi lu mu laaj ci gendarmerie boo xam ne war nañ ko fi def lu mu laaj ci ay poste de police lu mu laaj ci yokk ay effectif ba waa Pikine nekk dans la sécurité et dans la tranquillité incha allah bu ñu jëlee nguur gi di dinañ ci taxaw bu baax a baax a baax donc ngay sant ñëpp di gërëm ñëpp di jox kàddu gi ñoom Lamine euh, ak jupiter li nga xam ne ñëwoon na seet ma ñu waxtaan ba bëgg ñoom aussi ñu ay doomu Pikine ñu am lu ñu sànni may profité bala may clôturer di wax ni li fi ñu dañu ñëw aussi ziar si sunu doomu président sunu doomu Serigne muy soxna mu xayri ak borom këram Cheikh Oumar Kane ñu taxagal ñu yi ñu ñëpp seen yëpp bopp la ñoom ñoo ko moomal seen bopp ñu ngi ciy dox waar bi nga xam ne ñu ngi koy dox donc nous sommes di président cinquième président Cinquième cinquième. cinquième président. cinquième président. cinquième président. merci monsieur le président. donc bye. ok. le président ok dama doon laa ko yow dama doon laa ko yow ah monsieur Sine Diop ki nga xam ni jeune la dëkk ci dëkk bi di defar dëkk bi di defar gox bi jël Aliou Mamadou Dia ñaata ko wóolu Aliou Mamadou Dia jël lépp jox ko ko mais képp ku ko gëm moom Jupiter képp ku ànd ak moom yaa nga voteel Aliou Mamadou Dia te loolu nag choix bu clair la waaye choix bu conscient la donc on va écouter monsieur Jupiter. jërëjëf salaamaaleykum waa Pikine. rawaa waa ngeen xaanee suñu fi waaw maa ngi nuyu ñëpp vraiment di am mbégte ndax candidat bi suñu suñu suñu dëkk la ñëw ñun nag ku ñu xam-xam ne Pikine rek a ñu ñor bu ñu xëyee suba ba ngoon Pikine nañu doxal musuñu nag engagé ci benn candidat politiquement lu ñu am fii politiquement ci suñu ñàkk bopp lañ ko amee waaye yéen doomu Pikine ñi fi juddoo màggee Pikine xam ngeen ne Pikine amul benn coppite Pikine amul benn coppite te Pikine tey li ko war a defal mu ngi ci loxoy ñaan mu ngi bi ñun ndaw Pikine ñun ay doomu Pikine ñun ñoo ko mën a tabax Pikine xeexal nañ ko ci lu nekk xeexal nañ ko ci lu nekk loo xam ne luy yàq Pikine la tey nag dafa jot ci liy defar Pikine ëllëg ñu xool ba muy daan muy tànneef bi tànneef li tax mu am solo mooy Pikine naxee nañ lu nekk ku ne jaar na fi nax ñu mais tey candidat yi jëm 24 mars ñu xool d'abord seen profil ñoom ñëpp li mag ñuy wax rek bu pënd wuree ku ne xam kan mooy kan Aliou Mamadou Diam yi ñëw moo fi def parce que dafa ma gën a jantal déedéet président nag maa la gën a jantal président maa la gën a jantal waaye baa ngi fi xam-xam baa ngi fi est-ce que réew mi dañ koy jël jox ko ñoo xam ne dañuy tâtonner est-ce ah ani Mamadou Dia sëñ Moustapha Sy lu mu tànn ndax am nañ ci ñu leneen lu ñuy xool président a nga am lu rëy sànq damay dama nekk saalu soxna si ñuy xool may xool côté sëñ Babacar sëñ Babacar bi ma xool rek lay sànn macha allah waaye nag président sëñ Babacar dina xool ñu ëlbatiku gis kan nga yor prise bi ñu branché di la xool. kon président balaa ñu fi jógee président ki yor prise bi yàlla na la branché ku mu mos a tàkk nga kon nag bu ñu yegsee fii gëm nañ ne buñ ko ñaanee yàlla dina ko dogal ndax yàlla doon di gën ci réew mi waaye président yóbbal bi day doon leneen mooy ñun ndaw bi ku ne jaar na fi ndax ñu. dañu bëgg bii nga na doon yow te boo ko toog nee nañ ñu gis ñun waa Pikine ñu ànd di xeexal Pikine ñu liggéeyal Pikine président li nga Pikine bëgg nañ incha allah yàlla jox la réew mi ñu ànd defar ko parce que Pikine dañ fi war a soppi bëri na. Pikine mérite na beneen cadre de vie bu dul lii. Pikine mérite na mieux que arène nationale donte amuñu rien contre arène nationale. président ay cimetière lañ jox xeex ba ñu am lu ñu jox waaye boobu ba léegi ba ñu waxee ne. dinañ ko ubbi ba tey mënuñu ko ubbi kon nag ñuy xaar ci yow président loolu mu mu mun a wax na ci cadre de vie te ñun Pikine am muy cadre de président vraiment ñun doomu Pikine dafa mel ne ay jàng rek waaye xamal ne ñu ngi sa ginnaaw doo ci wéet à ah, présent duñu yem sa ginnaaw boo gestoo gis ñu boo xoolee ndeyjoor gis ñu boo xoolee càmmoñ gis parce que ñun doomu Pikine président ñun doo fi gën dañu boole de te moom la ñuy ànd ak nit kon nag lan la aussi na na réciproque kon nag maa ngi jox sama grand Lamine Diouf li nga xam ne moom mooy kàddu bi di baaluwaat ñëpp àq nag. vraiment dañu am mbégte lool lool lool. sama gars yi sama gars yi tey c'est du lourd qui se passe à Pikine dama bëgg ngeen xam bis bi tey. ni mu màggee ci waa Pikine ndax ki fi dugg si dégg ngeen léegi li ñu wax jël ko nag tey c'est un jour historique yow xam nga ma surtout xam nga ma suñu waxantu suñu tànnantu kii di Aliou Mamadou Dia tey am na kilifa wax léegi dafa am kilifa bu ko tànn waajal ko préparé ko yéene ko Sénégal kii dañ koo yéene Sénégal ah. te Sénégal dafa gërëm kii dina ci ñëw. comme man la dafa waay bu mu waay man ko jëloon la ragal moo tax mu dugal ci hip hop bi dama gën kii dafa yéex a ñëw am nañu mbir bëgg tey boo xam ne li mu wax yëpp bu ngeen bàyyee xam-xam su ba léegi laal na lépp liy nekk ci Sénégal te ubbiwul këyit ba léegi kon ngeen ciy jàpp kii dañ koo paree paare daal ñu koy sànni pour mu faj suñuy métit ci ku ko xam. Konmalele Wudakapit, let them wear it. Wudakapit, let them wear it. Wudakapit, let them wear it. Kabinet, Jan Kamla. Aliou Diallo Diop, boppam moo tolloog moom moom rek moo ko mën a sol. Boo leen solee foofu ñu dagg ko wala ñu yokk ko te kon Aliou la kàpp bi jot nañu man koo jox ko mu sol ko defee Sénégal am jàmm li tax ma topp ko nag man APR ñëpp ma xam ci ministre ak sax ñu bokkul APR Sénégal ñu xam-xam bariwul dama ko xaw su ko defee boo bëgg nag ndax Cheikh Tidiane moom maa jël ci boppam li may wax ñu xam nañ ko. ci bi may woo maa ngi leeral jóge na lu ñu dem Tchad parce que dem laa dugg Sénégal il règle les problèmes de pays man tam je règle les problèmes de beaucoup de pays ci ban gis ki xam ne li ngay wax premier ministre du Sénégal laa wax bu ciy waat ba mu wax yow kenn ñu ne waat mooy toogal ñaari minute nga waat ba ci suuf parce que doo am xam-xam xam-xam du ci ñaan rek la koy amee dañu Cheikh dañ ne ko est-ce que du mën am xam-xam te du jàng mu ne soppal borom xam-xam kii looloo ko may li mu am tey ak ñoom Cheikh Sarr ñi ma woon xëy na tàngoor la suñ bi am mais duguma ci domaine boobu Aliou tey c'est l'unique candidat au pur ndeysaan quelle coïncidence xool leen suñu candidat yëpp ñu am ku ci nekk am na lu ñu leen tuumaal di jëm déggoo ñii sàcc suuf jàmbur wala seen kilifa sàcc suuf jàmbur dama doon toog ñi tooñ jaamoon ñu am fu ñu leen làq ñu ngi jël suñu génnee ba tey leeragul yeneen daf fañ jëlee seen xaalis ba tey ñu leen koy laaj ñuy daw ñëpp nag koo ci laal am na lu muy teree di xool fu muy jaar ak fu mu dul jaar yàlla am nañu ka nga xam ni alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin ah alhamdulilahi rabil alamin amul amul lu ñu koy sikkee ba koy sikkal c'est le candidat de la pureté c'est le candidat de la pureté def ñu leen ñu toll nag du sëñ ba waxoon dañ ko war a sang moo tax man ma créé mouvement bu tudd clean clean en anglais nettoyer ba mu set pour ñu am lu pur ndax boobu daa ko waxoon réew mi dafa toll ci ñu sang ko ndax la mu jubloon mooy lu am lu pur tey nag biir baa ngi nii xilaas zarab baa ngi nii gars yi xilaas zarab baa ngi nii ci kanam gi ngeen di ak ci taxawaay ci posture gi ngeen xool bu garaaw la def day mel ni kuy dox pare na pare na mais day mel ni aussi kuy doxal ci yoon ak solution te ci sama téléphone lay wax fa may nag mooy su ngeen xoolee kanam bi xam si quelqu'un de serein de lucide de calme de sage de responsable Moi, tax vision ba ma ko gisee rek man su ma baatu combat unité équité transparence ak dignité parce que notre peuple a besoin de lui restaure ses dignités et on a besoin des valeurs pour notre nation Aline Mamadou Dia c'est l'avenir du Sénégal te Serigne Moustapha nee na c'est maintenant Ouzamé xam nga lu muy tekki maintenant Ouzamé M O J égale MOJ égale moo di kon Aliou moo di kon nag Macky Sall na génn ci palais bi na dem na dem na dem na dem na dem ok. allez gars yi allez merci gars yi donc waa Pikine kontaan nañu bu baax a baax ci yéen xale yi Pikine jeunesse Pikine jigéenu Pikine góoru Pikine kontaan nañ ci yéen bu baax a wax ni le candidat Aliou Mamadou Dia aussi avec tout le territoire de campagne avec aussi en sa tête le chef du primeur de la ville monsieur Idrissa il y a aussi le secrétaire général national du monsieur Chef Galiou, il y a aussi le responsable du directoire, monsieur Chiamati Gassar, et tous les autres responsables, les députés, les maires, tout le monde était là, accompagné, pour accompagner le candidat du peuple, le choisi, l'ultime choix, le meilleur choix, monsieur Aliou Allez, Pékin, merci, Pikin, Jérémy Diouf.

Obrigado.